asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal xaq ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ñaanal ko njabootu Cheikhul Xadim gi yëpp sëriñ Abdou Salam mi moom sëriñ daam nekk ci jataay bi ak bokkam yu baax yi mu bokkal jataay bi yépp di jaare ci ñoom nuyoo kilifa yi fi jiitu sëriñ maam Tawféex am sëriñ Misbaax ak ñi mu àndal yépp sëriñ Saaliwu Gom mi doon yëkkati kàddu ak sëriñ Ousmane moom sëñ Modou Kara bi nga xam ne moo fi jëkk cant kilifa yépp mën naa koo teg sa loxo Cheikh Abdou Salam nuyoo kilifa yépp it mën naa koo teg ci sa loxo ndax ni nga nekk kilifa sëriñ Serigne Youssou noonu nga nekk sunu kilifa kon sax noo ngi ci sant yàlla ba bi kàddu yi ak see toll fii ci mu ngi fekk jataay bi ak mbooloo mi di nuyu Serigne Youssou Diop di ko jaajëfal bu baax Serigne Youssou man dama ko jàpp ngir sëñ Touba mu jàpp ma ngir sëñ Touba nekk nit ku baax ku am pas-pas comme yitte ju kawe am xol bu rafet damay natt nit bis bi sax xam naa xaw ma lu mu yéene ba euh, def nii waaye maa koy upp sax xam naa yéene moom bu du soon ñuy jokkoo ndax fi ne euh, xaritoo gi nu xaritoo tax na ba lu ma ciy def dama koy woo mooy lu mu bëgg a def dama koy wax waaye moom lu mu wax daa koy wàññi ndax yéeneem ci noonu ak jàppam ci noonu kon sëñ Yuusu bis bi moom yow suñ mépp mbir sa mbira te loolu mooy dëgg ci man dafa am jikko ak doxin woo xam ne ci lañuy jàppe nit te yooyu laa la jàppe jikkoy biir jikkoy bitti eh, yu rafet lu ma xam ne bu ma ko defee rek dana fésal sama diggante yow danaa ko def bu ma amaatoon lu ma la tudde suba yi dama la koy tudde ndax lu lu fésal sama diggante yow yàlla xam na ko bu fekkoon bu ma ko defee ci ay pancarte di dox di ko wax danañ ko danaa ko jàpp ndax la ma jàpp ci yow man xam naa ko te tey jii firnde la ci ndax say bokk ak say kilifa sëñ Abdou mi ak ñu baax ñi mu àndal bokk si maam Cheikh Issa Dieng amuñu ak jot te yàkkamtiwun ci dara loolu nag sa jëf ak sa taxawaay moo ko waral kon lu leen jàpp xam nañ lu doo rusuñu ci réccu wuñu ko it bu baax kon noo ngi lay gërëm soppe yi sëñ Ousmane Kama bu ñu ko tuddee lañuy waxoon nag la ñuy waxaat mooy suñu jëmm ci mbooloo mi waaye nit ku ñakk ki te yéene ma ñu ngi nii monsieur Ousmane ndax man ku ne xam na ne duma wokaal te mbooloo mu nekk ci ab groupe doon ay soppe xawma ci sax ñaar te biir mbooloo mi rek xam naa ci ñoo xam ne tey lañ gisante waat ñaari yoon te tuddee nañ ma doom léegi laa leen di wax fii na leen bi ma toogee ci kaw ma ne leen luum géey juuf njaay sëy nduur ñoom ñëpp tudde nañ may doom te xawma ci benn bu ci sama mbokk nekk kon sëñ Tuubaa rek a tax loolu am sëñ Masamba mii tudde boppam général soldaru Gànna loolu yëngu léegi ba sëñ Ousmane di wax keroog bi ma tuddee doom kii laay wax mu dem fa ba nii nanguut wax ak man téléphone tey bi mu ñëwee dama woo sama taw Moustapha ma ne ko koo koy wax wàcc jëm si ci suuf ma sàmba soldaaru gànn la tudd maanaam li ngay doon doon sama doom ba laa rey ci man dama la koy teel a présenté na ko ma sàmba joxal ma Moustapha moom téléphone ma ko kooku ñëw ko mu doon na ko ma sàmba kooku sama taawa nga bàyyi ma ci xel ndax xam naa bu nee gànn bu ci tegee benn baat loolee xaj na ci ci moom loolu nag sëñ Tuubaa rek ko waral moom muy coordonné loolu teggi ma ci jëf yëpp te mbooloom group ku ko yor war caa di whatsapp man caa di nangam waaye comme duñu ko def gis ngeen addi yi jën fi joxe léegi te lu ñu xewle noonu la ñuy àndee ci ci addi yi loolu lépp mu yoral ko ci biir ak ci biti kon sëñ Ousmane noo ngi lay gërëm 2003 la ñu yàlla boole ba léegi damay wax ne bu may ñëw këram photo bi may toog ci 2003 ba léegi laa wax mhm. dana ci lal mbajj wut dorob bu weex def ci def ci doom bu góor bi mu am man mii la ko joxoon ma yóbbu ko daara seen Bachirou yàlla dogal na wattu na alxuraan ba dellu na ci kër ga kon wóolu buñ tawee su loolu mhm. kon maa koy sant ci turu soppe yëpp mhm. ñi ma yàlla booleel may ànd ñoom it maa ngi leen di sant sëñ Daaru Jéy sama maga mooy mooy moom lañuy ñuy àndal mooy sama chauffeur waaye sama maga tuddee na ma doom sama xarit sax ku bëgg seen Tuubaa la sëriñam daf maa wax ne sa ànd ak sëñ Daaru xaj na li may yéene ci moom ndax fi ma féete ci seen bi la yàlla dogale loolu kon maa ngi koy sant sëñ Moodu Silla moom it fi ne ci ak wér di la nekk hôpital la jóge montey biteel waaye téewut léegi nii dafa ñëw sukk ci na ma gàttandu gi ma doon gàttandu sëñ Xaadim dafa yëngalaat sama yaram ma ne ko waaw ana oto bi ndax yóbbuwu la mu ne fàtte naa ko jàppale ma ci liggéey bi ci biir ak ci biti kon maa ngi koy seere ñëpp di leen gërëm sëñ Tuubaa mi doon wax léegi noonu bokk ndey ak baay mooy sama mag bu ma ko tuddee tudd naa famille bi yëpp tudd naa njaboot gépp sëñ Tuubaa noo ngi lay nuyu noo ngi lay siyaare di jaale ci nuyoo bépp sama bokki Daarul Muxti yi yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax tey relation bi moo indi ma dem ba wut kër Daaru mu si nekk koo gis Daaru Musi sëñ Yuus mi bu bu màggal gi ñëwee dafay indi jàngkat indi sonorisation indi xéewal yu dul jeex indil ma ko fa ku mel nii boo ko amee mënuloo ko fay sëñ Yuusu hmm? kon mënuma la cee fay wax dëgg yàlla taman bari naay soppe waaye néew naa xarit ndax yàlla dafa ma bind ci sikk sikkus dama naqar deret dama compliqué dama dof daal loolu laa xam kon ku ma mën a composer rek am na lu nekk ci yow sëñ Ahmadou Bamba Mbuub maa ngi koy sant waxtu bi daaw soxnaam laa ko daraja yow gis nga bërki démb maam jaara mu nekk ca France bërki dem mu ñëw ànd ci Dakar borom këram bi la yónnee ay piis yi jasineer ak parfum yu cher ak ay garab ay garab ba noppi dama dama lay wutal carte ci France pour nga ñëw boo bëggee faj sa yaram parce que lu gàtt gàtt man na maa dem juróom-ñaar fukki réew yoo xam ne fu ma neex boo demee wàcc fa loolu lépp sëñ Tuubaa moo ko lu kon loolu defarug sëñ bi waaye kii ay piis yi jasineer la ma indil moom mais ak Moustapha bi ñu am jël moom maa ngi njëkk a dajeeg moom 2016 Madrid ci Espagne keroog bi ñu ñëwee ci boulevard Nelson Mandela bi war a def waxtaan wi moo ma mag jiituma ci lépp waaye moo ma tatagal moom xam na ko ba ma ñëwee hôtel bi ma dal amul visite moo kër sëñ Tuubaa gee mu mu même ba ma tukkee noonu lay def dem démb ñoo bokk nag ci Trovira ak sëñ Xaadim Gueye ci Espagne da ñëw Trovira da nga ñëw Alicante da nga ñëw Madrid ñëw Alicante ñëw Trovira doo fa bokk nekk ñoo jàkkaarloo dama xamul cent douze la nekkoon Sambro ma nekk cent quatorze hmm. waaye la ma ñuy mag mag day ñëw ci ñun dem ci ku baax sëñ Bàmba mbubb xol bi dafa rafet bëgg sëñ Tuubaa lool <clears throat> boo gisee jataay bi ma ne ko na ci ñëw toog kàddu yi muy yëkkati nu mën a toll de sedd suñu xol ndax bëgg gi mu ñu bëgg dañ ko ko delloo bëgg ko moom sëñ Bàmba nit ku bëgg sëriñ Tuubaa la kon sëñ Bàmba noo ngi lay sant te jot leen ñu santu soxna maam jaara sa moom ma nga xam ne ma nga ca France waaye wax dëgg yàlla mu sopp nu teraanga yi mu yónnee rek ay xaalis bu dul jeex la te lépp ay piis yi mbasin la ko def sëñ Xaadim Guèye maa ngi lay noyu maa ngi lay sant waxoon naa ko bu yàgg mën naa koo répété waat sama mag nga sama xarit nga waxoon naa ne danaa roy ci yow ñaari jikko bu yàgg muy dal ak mën a muñ maa ngi koy jéem eh, xam naa daaru sax nee na ma léegi daa ëpp ndax loolu lay wax léegi nee na ma dal gi daa ëpp boo xëyee na na tekk rek ay rideau ngay seetaan <laughs> xam na ne rideau yi salle bi lay seetaan dama ko woo mu ñëw ci kër gi ñu toog di waxtaan maa ngi moom ba ak man maa ngi ñibbi wala ko laa bu ma doo déglu doo seetaan xooli rideau rek wàcc dem dem dem kër ñibbi ko dafa mu may jéem a tàggatu rek am ñu may jéem a muñ muy nit ku baax seen xadim gi bu ma ko wooyee bëgg koo reetaan loolu dama koy faral di nettali lu koy reetaan dama ne ko dafa kilifa gu mag gu ma sa woo ab taalibeem na ko dama bëgg nga ab bitig bu ne fii ci koñu kër gi ci kër gi daa am bitig ma ma sarcel la ko bi wax ko bu ko defee nga di ca yaxantu kilifa googu boobu xalifa la am doole lool na ko ma defal la nga yaxantu moo xam ne yeggal góor googu na ko noonu seex duñ jaay mu ne ko <laughs> ah ko <laughs> bi ne kooku seex googu ni mu koy incarné mooy koo mën a doon boo ko wut see ñëw da lay yóotu loolu lay daje si xarit ak ma ne ko ak li mënta déglu ma ne am naa sama nijaay jox xam ne daa ñëw di ma seet xam nga lañ may seet doo mën a gis ñu ñëw mu xool fii gisuma mu lijjanti ba indi mburu yi ci kër gi ma wàcc yëngal kër yaay bokk na vraiment yow sa yaay moo nàmp jox ma ma nàmp ma ne ko ah yow dañ sa yaay dañoo ne mu ne man ah ñii ñëpp ñëpp ñëpp la seen yaay nam dafa dox kenn la mu jaar foo xam jaar ma foo xam ne ma yow par exemple léegi nag boo jëlee sa xale téléphone dafa naan ko am ah, sa xale ma woowee dana ana sa nijaay ci ragal alors léegi bu ñëwee dama koy boole Moustapha la ko boo koy ko teel ko programme maanaam bur bi la indi ci kër gi boo xam ne moo wàcc fekk ko léegi nag mu ne ma yow ko am kenn ku la napp ma ne ko jooju sama nijaay jooju xaw laa ko xaw laa ko ragal waaye loolu lépp baaxam la dama ko ciy rataal loolu ba biir bi bisi kon daal waaye nii moom ma sakaleeg sama jataay bi kulóoral ma ko ma noonu boo ñëwoon boo boo yab wax sëñ paate mi bu ñëwoon rek ci sa yàlla xam ne doy na maam Cheikh sama soppe bi nga xam ne moom nim la def ak fim la teg ngeen bokk ndey ak bàyyi mu mu jaayante léppam topp ci sa ginnaaw ma mm. soppeeku ko jàppeeku ko boo ko yabaloon nag mu doy waaye teewul nga indi góor jigéen indi waa kër indi ay kaar indi lu nekk addi yi ji nga ma joxoon joxoon ni sëñ Paate indi ko nga xam ne lu ci nekk mën na mën naa defar bis bi mm. te loolu ko xam jamono ji fi mu toll sagalal bés bi te fi ne bu fekkoon ne du dama la ko darajaale it bu ma nee la dama bëgg mbooloo mi ñëw mm-hmm. noonu noonu ngay def ndax yow sama sag dalaa neex da nga bëgg da di di ma sàngal waxtu di sant ñi ci kër gi yëpp di leen gërëm sopp yi kenn amul seen fay seen Ousmane liggéey baa ngi noonu nañ ci dox rek liggéeyal sëñ Touba sëñ Mor Guèye sëñ kii wax na ko léegi sëñ Mor moom sama waaye fi ne damay wax ne ma man yow laa am ci kilifa tax loolu bu dee këram may lijjanti bu dee nangam may lijjanti loolu lépp baax rek a ko waral kon man mënumaa fay ñi fi nekk ginnaaw sëñ xaadim ñëw na ci sëñ bàmbaa ngi nii toog te jotaay bi sama bokki janne yeeg sama bokki jigéen yépp jotaay bi yàgg na sëñ bàmba yëkkati ay kàddu sëñ xaadim mi jàngal sëñ xaadim xam nañ ne xam nañ ne xat na ci yow lool waaye yow danga noo yàgg jàpp yàgg noo bëgg dama daan toog fii léegi-léegi na ko sëñ xaadim yónnee ma ab garaam bu waay mu yónnee ma garaam bu rafet moom mi dégg nga hmm. yére yu rafet garaam bu rafet mu yónnee ma poroxaan daana am ma ne ko man dinaa ñëw waaye faaw yaa may wutal kon mbubb mu sol pour mën a ñëw ci poroxaan mu juuxuma la muy jël mbubb mu muy sol waaye day ñëw mbubb jox ma ko moom suñu xam hmm. moom ñëw naa poroxaan am na ci xaftaan bu bule bi ci mujj galas caam ko ñëw daaru mi laa ko mujj may te du jeex am naa fi bis ma am soxna keroog moo ko jëlee ci sëñ Muntaxa léemu ko keroog otoom la ma jox juróom-ñaari fan hmm. muy BM boobu def ci essence moo tax loolu nag moo tax nu jàpp sama mag sama xarit bi may tuddee sëñ Tuubaa doom dama ko woo na ko waa yow man fi ne sëñ bi dama ko bëgg a tuddee doom waaye tur woo jàpp dana mën a woyof ci man ko waxtaanee di ko ko wooyee mu ne ma Cheikh la Cheikh de neex na ba tuddee moom moo jëli woon yaayam mm-hmm. moo tax moom moo ko laaj ko nit du fàttee démb mm-hmm. tey jii Moustapha mi bi may seet mbubb tey ay walis ubbi na ko xam naa mbubb yoo xam ne yaakaar naa damaa xamul euh, ñetti at xaw ma yi xaw ma fu ma solee mbubb ma am ab pili ñu di ko passé waaw te bu dee yu ñuy dee comme léegi mu am ay hmm. jësi na waaw te ay ay piis yu ma ñëw te ngoogu fi ci biir te yow kon dama naan bëgg mu nga dee ma ko jox hmm. waaye yow nit ku baax nga sëñ Xaadim hmm. xam nga am dañuy wax ne xam nga dañ naan nit dafa am soppiku waaye fii ne nit am nga yéene ko ko gën a jafe fii ne koo dégg mu naan moom démb daa iñaan ndax ku ne ku newul ci démb amul. waaye fi ne am am parce que tey ku daan ñaan mbubu ñu may la ko nga sol ko. boo demee ba am téeméeri jasineer war nga ko sol yow yaa soppi ko wala jamono soppi ko ci yow. ndax boo ko amul soloo ko waaye li jafe mooy ànd ak nit muy sarak nga di ko toqi di ko teete ba mu egg fenn nga gën ko ko yéene. yow loolu nga def loolu moo gën a jafe. loolu moo gën a jafe barki dem maa yow ñoo bokk nekk ci benn hôtel ci ci Espagne bu ma ñëwee dama koo yëpp waaye ba mu demee di jàng ci kër sëñ Tuubaa daa mel ni adduna tukki ci man bamba sëñ bamba mu mii dama ko dal sama néeg léegi mu ne ma dama la yóbbal ci seen Xaadim Géey ma ne ko am mu ne ma lim def kër mbakki yu fay bu bàyyiwut lii muy def ndax la ma ca yëg dana am problème la waaw na ma dana am problème kon yu baax yi fii ni mu guddee taw saa yu ma ko waxee rek danaa ma noo ko bëggee xam na ne bëgg naa ko nag loolu moom loolu moom xam na ko hmm? waaw loolu la xam waaw loolu nag sax baax la rek sëñ Bada noo ngi lay waaye yëg naa loolu moom yow dama laa noggatu léegi sax <laughs> waaw yow sëñ Bada maa ngi lay sant jërëjëf sëñ Moustapha mii moo dox diggante bi wax na ma ko ginnaaw sëñ Bàmbaa ngi fi kon sëñ Youssou yow jërëjëf sëñ Youssou jërëjëf sëñ Youssou jërëjëf hmm? déedéet yow nituk àjjana dafa yomb xam nituk àjjana fi ne lu yomb xam la boo gisee euh, sëñ moor mi léegi bi muy jàng dafa ma yëngal wax naa ko ci màggalu daaru musi gi mën naa ko waxaat te booba sëñ xalil la ngi toog mooy taawu sëñ Moodu Maxtaar dem xalifaam ma ne ko sëñ Moodu gawuma ko woon dama ko bëggoon waaye gawuma ko woon ndax xaw ma batin xaw ma xaw ma xaw ma dara ma bëgg ko ngir silwiise gi ak baax gi ak labir gi waaye bi mu bi mu ma dimbalee yamale ma yàlla bind te noonu la ko waxe da ko gawuma koon woon dina xawuma ko woon ba ngi yii nu toog tey yii nga xam ne ma nga ci kër gu jëkk ga sama rakk jee di Moodu Maxtaar mi sere ne moom lañ ko tudde mu yar ko mën na ko seere dafa yàgg bëgg ma am teraanga dama fa ñëwee ma kocc kocc ba defarub sàll te awma eh, ab salon Maxtaar mee la jox salon bi nga xam ne ca Dakar la ko dindee boobu ay mil 2004 lay doon jox ko mi ngi nii ca kër gu mag la nekk papa mais di sama rakk moom ak abala ngir tey ñu tokki boo takkee montar mu la bi baaxut fii sama ginnaaw lañ baas 2016 ndax 2015 laa sanc fii 2016 mu gane si ñu gàttaloo ji ko ca vidéo yi boo demee da nga gis vidéo yi ñu gàttaloo ko ca kër Cheikh Sidi Muxtaar ñu nuyoonte ñëw jaar ñi caal kër suuf si baax si mu ne ma gànna jaral naa la lii na ko mun baax la ma def la ma man ak la ma mënut ba mu génn fii toog àdduna bi di ko seetaan te boo demee tàppe bi ci sëñ Modou Mokhtar Cheikh Gana Messere mm-hmm. mm-hmm. mu ne ma teral nga ma sagal nga ma jaral naa la lii bis ni ki tey génn nga ci way ñàkk yi mm-hmm. dellu ginnaaw boole na sa deret ak deret Serigne Touba Cheikh Serigne Touba nga dutoo dellu gannaaw mukk ma di ko natt ñoom Moustapha ñi ba ma toogee ak ñoom daarul maxti dama leen koy wax ma ne ba ma waxee loolu ak léegi xawma yitte ju ma bëgg a def te mënuma ko def wala lu ma bëgg a faj te mënuma ko faj doon ko ne yuruma dara waaye boo ko waree def boo ko bëggee day mel ni moo lay wommatal ku ko def soppe yi xam naa fi koo xam ne fi ne mooy bale ci kaw di for mbuus yi di tëj bunt yi gëléem gi yeewoon fi moo ko fi jënd te ma nga fee ci mbooloom mi ba waxee mu ne bu mu tudd kon kilifa ku ko am bu la dimbalee da ngay xam dalaa dimbale kon nag yëg nañu ko dimbal gi bu baax nee naa sëñ bi nawloo nawloo gi ma nawloo ndax ku seexloo bokk ak yow ñam du jur di la jox ku seexloo bokk ak yow ndab du jur di la jox ku la bëggut a dimbali du la booleeg deretam te sëñ Modou négul ba ma mel ni am li mu di ma mu di ma jox doomam 2012 la ma jox soxna si aw kër gi sama kër bàyyi la nekk mu ne ma këru Touba gi sëñ Touba nee na lay doon dama boo ko jëlee danaa la samp ni soxla hmm. kon loolu man sama yónne ko ci loolu ma ci dara de ah. kon loolu kilifa du ay caaxaan mm-hmm. waaw mbalaanum sëñ Tuubaa yi ku mu ko yiir xala du tax mm-hmm. nga génn ko mm-hmm. ndax mbalaan mi di sëmbërtalu ci wet gu nekk yàlla na mu gën a euh, muur ci mbalaan mi rek kon sëñ Moussa sëñ jataay bi yàgg na ci moom te loolu faaw lu déglu sëñ Xaadim ngay déglu sëñ Bamba Mbuub sëñ Xaadim moom xam na ne bu buñ fi desee noonu dongit moom bu nu jàngalee nu ko ndax am njàngam li ci neex mooy boo koy déglu ci bitti ne sa néeg <laughs> am na façon dox yu ndaw yooyu mënee su ko def ci tànt rawat na fi téléphone yi toll waaye waat naa ko ci yàlla wala yàlla natt woon bis nga déglu njàng mi mën a fekk ma ne sama biir nekk da xam ne lépp dëgg la <laughs> dégg naa ko dégg boo xam ne maasa boo xam ne waaye <laughs> fi boo ko boo ci yëngul benn yëngul bu ñu la filmé waaye léegi léegi nu ànde ko àndinu man nag mu nekk lay doon sànde pay nu ma fekk doore yeewoo sangu ba soloo tënjoog yëpp waaye léegi léegi daal Seexuna Bàmba ji nga nga yëgal ko sa bopp yëginoo xam naa dinaa ko ma a def defi loolu dinaa fexe ba wut koo ko maa defal sama bopp caméra bi fexe ba yónnee la ko waaye waaye mënu ko def ci biir mboole ba ko ko dégg laa nag waaw maam na nga bàyyi xel ne ku ko dégg laa déggantuwuma waaw mu ko dégg loo ah. waaw dama ko dégg de te yow sax danaa la ci mos a mosal dara pour leer jërëjëf baal leen wax sëñ sëñ eh, géwél bi xew sëñ Alaaji Sekk yàlla yàlla taxawu la maanaam bi ma toogee fii léegi robb gu ma romb ñaari junni la may nuyoo xamaguma ñaar ñaata ñaari junni la ma nuyoo Alaaji maanaam day def bu waxee nuyoo ma ñaari junni boo rombee moom yow moom li nga soppe baax na moom yow moom ku war di bàggante nga ginnaaw boo rombee ñaari junni boo boo dëppee ñaari junni loolu yàlla la yàlla jàppale ndax wax dëgg yàlla barki démb bi ñu ñëw lax ci yoon wala ñu gàttandu ko jàppal nu bopp bis bi teel ci ñëw lool indi addi yem ju bari waaye teewul mu mu mu jàppal kon nag noo ngi lay sant bu baax noo ngi lay gërëm dañoo mën asgoor ma ne suta yëkkati kàddu jox ko te du ko delloo waaye bu ma yoon sax naa cee a yëkkati genn kàddu waaye fi ma doon wax ba bët set bu sedd rek lay doon ndax wax dëgg yàlla nii ma doxalee cérémonie bi looloo ko indi moom borom xam-xam la mu ngi jàngale ci al azhar bi nekk ci géejawaay barki démb la ñuy waxtaan démb ci kër gi dafa ñëw mu ne la benn waay da ne daan misère mu ne ko yaakaar naa xamoo ko xam gu leer fekk mu ne ko boobu da nga ko waroon wax ne ko yi dafa métti woon neexul nii rek te bul nekk nu ànd nag jógee benn fenn di dox di xuus ndeke kamb gi kamb gi gi gi gi di xuuse maanaam lu gën a avancé gën noonu ma jékki-jékki ko yow jibril aw xuusin nga xam <laughs> loolu nga xam ne daa yàgg doon sama waay mas naa am conférence boobu mu ko wax na ko demal Casamance keroog ba mu demee ci conférence bi kase bi ñu ko jox ak addi yem am yëpp moom ñëwee dafa ko te booba li xewagul gis nga ko lu ma nekk léegi nii dafa ñëw ne tànk bi dafa dafa faxaj ma ne ko toogal te <coughs> borom xam-xam la moo ma raw foofu man bu doon natt ñi gën a néew xam-xam maa ci gën barki démb ci daarul moxti man suñ tubaab ma dimbale mm-hmm. dañu toog ci kër gi ci daarul moxti kan xaw ma kan moo jëkk a génn ci téléphone am aw bayit am keneen ku génn aw bayit ci toog ci takkusaan ma leen kaay leen ma xamal leen dara. Mm-hmm. bayit woo leen génne ma mokkal ko woo leen passé ci téléphone bi rek woon leen ni sëñ Tuubaa demee ñuy génne daroo jëkk a génne ab diir na taf daal di téye ma ne ko toogal ma ne ko yow yaa ngi génne nafaxani naafixu nafan daa ima maaxal munaa wala yazaalu daa ima am keneen ku génne benn mu ne ko kitaabi bi di dal war a ahabu min xati xëyri boobu sëñ Tuubaa loolu la dikkee ak man man li ma dégg mokkal ko ak li ma mokkal te xaw fi mu nekk moo ëpp li ma xam mm-hmm. loolu ma sëñ Tuubaa dimbale waaw loolu la ma sëñ bi dimbalee barki démb dama toog ba yàgg dafa am ñaari béy màggal Tuubaa la ma dikkal dama toog ba yàgg barki démb ma ne waaw teraanga ci sëñ Tuubaa di def ak bernde yeeg digle gi mu digle cant gi man daal bëgg naa ci xam benn dalil mel ni dama toog dégg bayit woo xam ne dafa may daf may ilham mu ne axtayte ni xiraaya fi bi fa li yahab shukraka fi turaabi nga xam ne boo mu maanaam bu demee woon li nga am lépp joxe ko tax wax fi mu ne baa nga dee ma faatu mosuma koo teg bët xaw ma fu mu nekk loolu sëñ bi moom moo lay moo lay moo lay dimbaleel boppam kon boo ci nekkee bis dafa am bis bu bis boo xam ne am na day bi nga xam ne taxul ko yóbbu mas naa di fa waxtaan sëñ Tuubaa bay woo du ma ko fàtte may waxtaan ba egg ci bayit bu ko wax bayit bi réer ma man nag mosuma gis sëñ Tuubaa mosuma koo gis mosuma koo gént des na ma ko géntal nag nag sa waay mi léegi mu ñëw na ma sëñ bi nee na nga foog diw mu gént waaye man mosuma koo gént xaju siqante ma moom it ay géntat waaye nag xanaa wóor na jëmmi si Ahmadu Bamba léegi rek ma egg ci ñaan bëgg faatu ndax bëgg koo gis jàpp ne ku faatu danga ko gis mën naa ko gis ndax bëgg koo gis waaye boobu may waxtaan ba yàgg ma fàtte bayit bi mu jekki-jekki rek mel na dañu tiri benn rido bayit bi def nii nga xam ne jàng yooyu ca la yam laqad tabayyana lil fujjaari kaw kulluhumu kawnul kiraam ma'i is jaysuhum xaanu du ma ko fàtte mukk noonu la noonu la noonu la kon sëñ bi moom mooy dimbali boo ca nekkee tam wér moo lay dimbali du ay logg-loggal ak ay wiiraase ay ay ay karkara rek du sëñ Tuubaa gis nga sëñ Tuubaa li gaa yi jàpp ne moom la mënut noonu loolu lan xam ne moom la man ñu gëm ko foofu la ñu wute mooy sunu différence ak sa maam Cheikh Issa daana wax ne li ma xam ci alxuraan ak tabax dana fuus ndax kenn du ma ko laaj ana xam-xamu fi mu nekk ci Cheikh Issa Diène ci ci raw ci sëñ euh, Mor Kayre day tagg Cheikh Issa ba yàgg mënu ko xat xusta ilman wa xudman summa maarifatin yow am nga xam nga te daawoo jayoo ko jay xam ne xab wii la def arab def xab wa xudman summa maarifa la nga xam-xam am ngam koom xam nga yàlla xat fut sangil man waxul man suma maarifa te yow daawoo jayoo ko jay nga xam ne borom daaru moxti bi ku am ku nekk ci kër borom daaru rek amante nga kër Cheikh Issa Dieng wala rek waaw ndax nam demee woon ak maam Thierno ak fa mu jàppee woon ak la ko maam Thierno doy la woon mhm. ci jëmmam mhm. ak la mu batale woon waxoon ko ci waxoon na ne Touba bu doon am wujj Daaru Muxti lay doon. Mhm. bés a ngi ñëw bu Touba doon am wujj Daaru Muxti lay doon. loolu Cheikh Issa Diène moo ko wax bi ak daal na Ceerno ñu ko rop bàmmeel beeg bunti àjjana ne makk jàkkar la. daal mhm. dafa bokk ci wàllu yàlla yi nga xam ne dañoo nëbb seen bopp. Mhm. waaye Ceerno day ràmm ab dëkkam day ràmm loolu. waxoon na it ne bu doon rëbb gaynde tey ànd ko mbakki mbakki. Ceerno Ibra Fati lay àndal ngir ngor ga. ak jom ja mhm. fekk moom ay wax la borom Cheikh ay wax la woon boobu borom dara daan na sëñ Touba de xanaa yàlla du ko digal mu digal Issa Issa di bàyyi lu ko sëñ Bamba digal ñu ne ko Thierno la ngaa far mu ne def yàlla wax laa wax mhm. fi yàlla wax laa wax moo tax Cheikh Issa moom beneen dimension la beneen programme la ñi ñii ñiy waxtaan it war nañoo sant Cheikh Issa ndax ubbil na leen sëñ Touba bunt mooy koo xam ne jataay bu ñuy bu seen mi nekk ci géej gi ngay jataay bu koy waxtaanee ba sëñ bi ñëw di ko laaj ci loo nekkoon mu wax ko loola mu ne ko lu ne ngeen naan ma bul ko fàtte kon loola ko may hmm. kon nu it dañoo amaat beneen cër ci maam Cheikh Issa hmm. te bëggal ko suñu bopp na hmm. waaw yàlla taw fee xel yi sëñ luñ ci xam mu xamal na ko ci dina ci woon ay mbind dina ci woon ay jàngale dina ci wax leen lu nekk kon yéen seen maam Cheikh Issa Diène rek doy na sëkk misaal doy na sëkk ndam doy na sëkk ci wane daraje yi Serigne Touba bu ëllëgee fii na ko denc Serigne Touba moo ne woon ku lu fi denc mooy bunt bi gën a gaaw ci tabbi àjjana fii ñu denc Cheikh Issa maanaam ponkal la moo xam ne su affaire yii maanaam mas naa dem ci genn kilifa moom Cheikh Issa guddi jot kilifa ga daan nam dëndum buur di tëgg nañ ko biig kilifa googu bàkk na ko tëdd nañ bëngu dëndum bi buur bi yëng yaa nga yëngu tëgg nañ ko biig Cheikh Issa na ko ndax daanañ la ko tëggal lu jiitu ma fi ñëw ñoo ko dee mu ne ko kon bu yëngoo da ngaa war a xam ne ko war a yëngal ginnaaw ginnaaw ba ma fi deewul ñëw du yëngu kon ba fi ñëwee mu yëngu te kooku ponkal la boo xam ne ñu bëri ñu bëree bëri dañ kii waaye maanaam cër bu réy bi ko yàlla jagleel tawfiix ji mu am ci jumay njeereen tawfiix ji mu am ci liggéey Serigne Touba te moom képp li ñuy wax asmaul husna juróom-ñeent fukki tur yàlla yi juróom-ñeent yàlla xamal yenn yi ay xeejam tur yi ñuy wooyee Serigne Touba ëllëg yo wax te ba mu ko waxee dana ko sëñ Sidi nee na ma Cheikh Issa daa ñëw sëñ Tuubaa ko yow da ngaa nuru Rasulaay ba nuru ko tur yu bari tàmbali daa Mbàkke Ahmadu bon mu ne ko Isa jenn ku ne la am na tur am naa turu biir jógal foofu mais Cheikh Issa dox juróom-ñaari jógu sëñ bi woon na ko loo ci namm mu ne ko du ma ci fal nit du ci fol nit mu ne ko baa doo ko wax kenn mu ne ko Mouhamadou Lamine mi sama taw du ko xam bu mhm. dee man mu ne ko jege si ba Cheikh sëñ bi dëpp gémmiñ gi ci noppi wax ko ko ne ko ku dul yàlla ak rasul lay xaw te Cheikh Issa nee na tur xam yaa ëpp juróom-ñaar fukki junni wala yu kattan am na bis maa ngi sëñ Baara Dieng ak ñenn ci jaboot gi jëm xabaar mm-hmm. oto bi dox ba yàgg dina ci waxtaan ba yàgg rek oto bi tarfati mel ne lu bëgg a wàcc Cheikh Issa ngi ci kanam muuru na ba yàgg oto bi dellu si waat ba guddi nag ca Ndakaaru jógee nañ fa ni Ndakaar muy wax ak sëñ Baara na ko noo leen defee seen wata bi mu ne ko jenn xanaa jaaxal mu ne ko benn yoon laa woo turu sëñ Bàmba bi rek juróom-ñaar fukki wala yu dellu si waat juróom ñoo dellu si waat oto bi te xoolal ku dem ba sëñ Tuubaa jox la secret boobu waxal la ko boobu sëñ Tuubaa ko seere te ci góor yàlla yi la bokk ba muy gërëm sëñ Baara Jeen dana ko yàlla gërëm na bi gërëm na gërëm naa la sa baay Isaa Jeen gërëm na sa góor yàlla yi la bokk loolu sëñ Tuubaa ko seereel la kon nag noonu loolu lañ doon barkeelu ci loolu di dellu di sant njabootu sëñ Misbaax Amar sant njabootu sëñ Ibra Joor gi sant sëñ maam tawfiix bi fi nekkoon kon baal leen maq asalaamaaleykum bisu soppe yi nga xam ni ñoo sopp Sëriñ Gana Messere ba di ko wutal bis bii di ko ci ziyaare bu nu màggalee ba ci ginnaaw suba sa Sëriñ Gana defal nu privilège nu ñëw di ko fekke muy loo xam ne nii lu rëy rëy la ci nun di leen wax ne rek Serigne Gana Messere privilège bi nga xam ne def na ko ci nun muy féetale nu bis bii ñu di ci yëkkati sunu kàddu donte cinq lay doon lu rëy la ci noonu ndax moom bu jëloon kàddu yi téye ko waxtaan àdduna bépp danañ bég danañ ko déglu te ñi koy ziyaare buñ sañoon sax moom rek la dégg kon nag bu ci defalee kenn benn cër dafa fonk kooka daf ko jàpp waaye daf ko bëgg a wone aussi kon maa ngi nuyu bu baax sëriñ Gànna di nuyu bu baax sëñ Youssou Diop mi nu tudde bis bi muy loo xam ne yëg na ko lool ku xool jëmmam xam ni tey kontaan na waaye di nuyu bu baax sëñ Xaadim Guèye di ko ziyaare di leen wax ne bis bii nga xam ni ci lañ daje di waxtaane sëriñ bu mag bi ci kër sëñ Gana Messere Maxtaar bis bu metti la woon keroog bi fi sëriñ bi jóge bis bi muy bàyyi ko fii ci belli cosaanam di dem ci géej gi di liggéeya li rasulillahi sallallahu di jaamu ji boroomam subhaanahu wa taala ànd moom dong te bàyyi fi juróomi téeméeri taalibe yu nangoo faatu mu ni déedéet du yóbbaale kenn moom képp mooy dem ci tukki bi moom képp mooy liggéey liggéey bi te juróomi téeméeri taalibe yu nangoo faatu ñëpp ne ko dañoo bëgg a dee nga soog a dem mu ni déedéet baada salaatin la tazol bil ali wa saabil udul wa bi jadidi sabil bila iddan aw alami génovérer le patrimoine islamique sans guerre et non violence dinaa beesal lu nekkoon ci Muhammad te xuriku sax du am kon kooku keroog ba muy dem bis bu diis la bis bu metti la ñu aaye toolam yi aaye këram yi aaye dëkk bii di Touba te dara waralu ko rekk lu dul li muy liggéeyal yonent bi ak li mu koy tagg muy dem ci tukkeem bu tedd boobu naan xusuur yi xallat walla ahlu ani tafaraqat li mat ilazi anhum diwul qasir mes demeures sont vides et je suis séparé des miens dans ma solitude où je consacre à composer des poèmes à l'honneur de celui qui se repose à Médina moom képp moom dong mu tàbbi ci géej gi di liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam liggéey bu tumuranke bu kenn mënul ndax mu ne xaajartu min duuriyewal bunyaani bi xidmatil muxtaari lil jinaani bàyyi naa sama njënd ya ak sama doom ya sama daara ya ak sama taalibe ya tàbbi naa ci biir géej gi di liggéeyal Seyduna Muhammad ba ba may ànd ak yéen dem àjjana kon moom mooy koo xam ne danga koy jox sa lépp mu jox la lennam nga gëne ko ñëpp sëñ gànna dafa jël léppam jox Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Bamba jël lennam jox ko mu gëne ko ñépp tey mboolem kuy waxtaan ci sëriñ bi bàyyi nga ko xel te xam nga ni mooy conférencier de la Mouridia moom la peuple bi yëpp d'accord ne bu waxtaanee àdduna bépp bég bu waxtaanee àdduna bépp gis ci seen bopp ngir sëriñ bi moo ko choisir ngir mu di ko waxtaanee kon sëñ Gana yàlla na nga gudd fan bu baax yàlla na nga wér bu baax yàlla na la yàlla suturaal ci barke xaadimu rasul ba li nga xam ni moom la yaakaar ci yow yéene ko ci yow yàlla yeggale ko ni nga ko bëggee ndax it nag sëriñ Tuubaa du solu ci ku yorub dara ku yor dara ci moom rek lay àndal yow nag ku la gis dana xam ni am na loo yor ci cheikhul xadim sëñ sëñ Kama wax na ko léegi sëñ Youssou Diop wax na ko léegi te man mii du dof xam naa bu baax fi la Sëriñ Tuubaa teg te foofa laa la teg yàlla na nga gudd fan yàlla na nga wér yàlla na la yàlla defal sutura ba li nga bëggal Sëriñ Tuubaa nga defal ko ko ni nga ko bëggee sëriñ boobu nag tukkeem bi ku bëgg am li mu am benn naar def ko ni yaa man yu awwilu chewa cheikhi inna lahu sha'lun yafuutul wara idraki mit maari e eh, yaa bëgg am mayuk Sëriñ Tuubaa gi yaa bëgg a toll ne moom yaa bëgg wilaayaam gi nee na kaay dem ci géej gi yaa man yu awwilu shawwa cheikhi inna lahu sha'lun yafuutul wara idraaki mitmaari fa xit ka xidmatihi wa xit ka xidmatihi xaw ba ka awbatihi taxus bi rummatihi maa shóora ashaarihi yaa waahid al aadi min noxmaawu samilatan turran lil xalqi abidaahu wa aqraahu naar bi nee na ku bëgg a mel na Sëriñ Tuubaa na dem ci géej gi te bu demee na dox na mu doxee na wax na mu waxee waaye bu mu fa dee bu mu fa patt bu mu fa làggi na ñibbi siwaat ma bu fekkoon ni kenn def na ko ci yéen sax du tax am genn wàllu la ca Sëriñ Tuubaa jëlee déedéet ndax moom moo jëkk a dem ci géej gi kon moomoom moom droit d'auteur géej gi تخص برمته ما شر أشاره يا واحد الهادي من نحماه سميلة ترر للخلق عبداه وأقراه naar bi nee na bu demoon boo demoon sax ba réussir ko boo ñëwee genn wàllug la nga ca jëlee dañ koy jox Serigne Touba ndax moo jëkk a dem ci géej gi te moom sax woy ragal yàlla ya tey woy jaamkatu jaamu yàlla ya nee nañ ko yaa jiitu kenn rek nga yow Cheikhul Khadim kenn rek nga yow kon waxtaan wi noo ngi ci sant bu baax sëriñ Touba sëriñ Gana Messere Maxtaar noo ngi ñaan ci darajey sëriñ Touba yàlla yeggale la fi nga bëgg a yegg yàlla defal la sutura bu baax a baax a baax ba loo bëgg rek nga def ko sëriñ bu mag bi daal moom nga jàpp moom it moo la jàpp jàpp nga ko waaye moom wan na nit ñi ne yow jàpp nga ko ndax moom nee naa la sa lépp nga koy jox mu jël lennam jox la ko nga gëne ko ñëpp yow maam Cheikh Ibrahim baabul Babul Mouridina moo wax loolu moo ne sëriñ bi danga koy jox sa lépp mu jël lennam jox la yow nga gëne ko ñëpp sëriñ boobu yi nga xam ni tukkeem bi rek lay côté ci ñeenti tukki jox sëriñ Xaadim géey mu ñaan nu dellu ba déwén waaye sant yàlla nag ci fekke woon ko daaw ñëw fekke ko ren yàlla nañ ko yàlla mayaat ñu fekke ko ay ati ati at lu bëree bëree bari ñu koy fekke ci barke xaadimu rasul benn naar daf ni alif laam miim a xasiba naasu an yatruko an yaqulu amana hum laa yaftanuun wala xad fatana min qablihim fa la yalaman allahu lazina sadaqu wala yalaman alkaasibin da wax ne aaya googu moo yóbbu Sëriñ Tubaa ci géej gi sunu borom dañu dootuma leen bàyyi rek ngeen naan gëm naa gëm naa gëm naa ci seenu làmmiñ ak ci seen xol te duma ko seet ba xam li ngeen wax dëgg la wala du dëgg kon aaya googu sëriñ Touba naar bi nee na looloo ko yóbbu ci géej gi daal ne fakkam xurbati alab li tafriji kurbatin wa kam safarin ata ala raati safri mu ni bariyaana kuy tukki ñu di ko yërëm bariyaana ku wéet ci liggéeyal yàlla waaye ndekete woo yàllaa nga koy xaar ca tukki boobee ak may yu rëy yoo xam ne ku ne dana ko ko ñeewe loolu moo dal Sëriñ Tuubaa mu ni kon nag tukki bu njëkk bi may jëkk lim mooy abona xalilullahi naala bi ijrihi li awtaanihi ma la min taalibil faqri mu ni tukki bi may jëkk lim mooy tukkib sunu maam ibraahima keroog ba nga xamee ni nii Namroos ibnu Kanaan bëgg na koo dugal ci safara taal taal bu rëy dugal ko ca safara wa sunu borom ne ne annaaru kooni bardan wa salaaman ala ibrahim taal ba fay ne ko tàkkal te bul laal ibrahim taal bay tàkk rek ibrahima ne ca biir waaye taal bi amul droit lakk ko benn yoon ñu ne keroog ba mu fa jógee nag dem Palestine keroog nag la dajeeg naari ama lix yi ñu ak ikk sisi ñu may ko soxna suñuy wax Haajara mu am ca ismaila mi maami rasulullah sallallahu alayhi wa kon kooku ab tukkeem am na njariñ lool nee na tukki ba ca tegu nag way wa musa kallamullahi naa ja'u rabbahu faqad ba al awtaani min ziddatin zuhri mu ni xool leen tukki ba ca tegu mooy dem Moussa ci ca tukkeem ba moom itam jóge Égypte dem dëkk bu ñuy wax Madiana def fa juróom-ñetti at wala juróom-ñaar may nañ ko fa soxna sàmmal na fa yonent yàlla Suwaybu waaye moom it daal keroog ba mu dëppee bay ñibbisi la wax ak sunu borom nee na kon tukkeem ba nag jar naa jaroon na tukki ndax tukki wax ak sa borom subhanahu wa taala musaa def na ko ci tukkeem kon ñaareelu tukki bi mooy demu musaa bi mu jógee woon foofee dem Madiana da sàmmal fa yonent yàlla Suwaybu juróom-ñetti at wala juróom-ñaari at yu manqué tuuti mu ne ko lu jur gi jurati ca juróom-ñetteel bi at bi yaa moom may ko soxna kon ab tukkeem ci la waxeek boroomam subhaanahu wa ñu ni ko ñetteelu tukki bi mooy ban mu ni ñetteelu tukki bi nag mooy tukkib sayduna muhammad wa haza abiballah taa nabiyuna bi ijratihi xat naa la nasran ala nasri mu ni xool leen tukkib yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na moom itam keroog ba mu demee Medina jóge màkkatul mukarama la dajeeg ndimbalul yàlla ci kaw ndimbalul yàlla ndax keroog la waa makka yee nag bàyyi koo makka di ko fekki muy préparé fat u makkata ba ni mu dëlsee makka medina la ko amee xeex ak ñoom badar duma leen dellusiwaat siwaat makkatul mukarama ubbiwaat ko muy fat u makkata te doorul mag doorul gone doorul jigéen ne yépp na ngeen xam ni rek dañoo juumoon waaye na leen leen baal te dikkaat ci sunu dëkk rekk loolu rek moo nu yitteel moom sayduna muhammad alayhi salaatu ñu ni ko waaw ñeenteelu tukki bi nag mooy ban mu ne ñeenteelu tukki bi nag yàlla tukki yooyu rek la reconnaître ci àdduna ñu ne ko ñenteelu tukki bi mu ni wa haza himaamu tuuba wiwu xadimuhu bi xaybati i zallat la woo zatwatul kufri bi xarajo wa adwan min ardihi walam yazmihu xaybatan baxri mu ni tukki bu ñeenteel bi mooy sunu limaan ji dëkk tuuba nga xam ne tukki yëpp ñeent la ren ji màggal gi quatre quatrième jour bu bu la numéro Serigne Touba la moo jël nag tukki Sëñ Touba bi moom naar bi woy lii classé ko ci ñeenteelu tukki mu ni wahaza imaamu Touba bi ويقدمه بخيبته زلت له زلوة الكفر بخرج وعدوا من عرضه ولم يزمه غيبة بخري mu ni tubaab yi bu nu xamoon ne bu nu yóbboo sëñ Tuubaa ci géej gi bu nu dellu see nii lay mel duñ ko yóbbu ndax dafa damm ñëw ka kéefar ci tukki bi te dootoo dégg ku nu yóbbu ci tukki bi mu demee ba ñëw kenn dootul yóbbu kenn cib tukki ci la tukki yëpp yem ndax xaadimu rasul dafa xat mu tukki yi dem ba ñëw man yulqani fil bahri raw man li qurbati fasaadani min al ilahi turbati que celui qui me jette très loin dans l'océan en vue de ma perdre sache que Dieu m'a subjugué tout l'univers moom Cheikhul Khadim yàlla daf koo notal lu mu doon kon sëñ Gana sunu xol sedd na dañ doon wane rek tuuti sunu mbégte eh, di wane sunu yéene di la ñaanal nag rek yàlla na nga yàgg ak sa soppe yi yàlla na la yàlla defal sutura nga yàgg ak sa soppe yi nga yàgg ak taalibey sëñ Tuubaa yi nga xam ni yow rek lañuy déglu loo leen sant te doo leen sant mukk lu bon baa nga di leen sant lu nu wërta def dégg nga léegi ñi fi nekk ñëpp liñ la seedeel mooy santoo kenn lu dul yàlla ak yonent bi ak cheikhul xadim kon ñu ngi lay ñaanal ci barke cheikh ahmadou bàmb yàlla na la yàlla defal sutura yàlla na la yàlla sàmmal boppam yàlla na la yàlla yàggal ci sunu kanam ngay waxtaane xaadimu rasuul ni nga koy waxtaane jërëjëf ñoo ngi jox na kàddu gi sëriñ xaadim Guèye mu ngoog jërëjëf jërëjëf jërëjëf salaatu lazi li xaa dëkkaw ni xaliilahu alaa man bi lii tey yabal badwa wal adar فتوات رب العر سأن قد معي بي بجاي الذي باهات بمن علو مدر رباي في إقدام من خير الورى بدأ وفي كل سعر سيد ربحي وفي سفر رباي في إخداع من خير الورى بدا وفي كل سعر سيد ربحي وفي سفر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

مؤيسا مني مل الخناس فاسد فاسد مد لي قاتي مخجل الخياس من بيا باها جملة الأكياس فاسيا مد إلي من له جناسي مسارا تبقى بلا أدناس واو ربي وما إباسي إباسي بسنة الماء من العناد يا توحيد الناس بسنة الماء من العناد دينية كانت الماء الغنى عذبا النواس من سنة الماء المنى عمد رئيس كل راس جمال علي نبرات أو نعادي رسول الله يا نوراسي النوراسي يغني جاسيا قد للأمن بلا إجازة لا إنجازي من خاد للأمن بلا عباس الإلهي لي بالالتباع وذي Ah الإله لي بلا التباعد عباسي غاثي لله كل بلا وذو عذاب جلاء بنواد بلا وصاد وأسدم جلال أداني الله إلى إباده وعاد للعنة عن بعد لا يفعد وعاد للعنة عن بعد هداني الله بلا إله وخاد الحب عذيب بلا يفاز وفي وخاد الحب أداني الله إلى أحد وخاد الرضوان في قلبي بعد لا إفاد وحد الوان بأنفاسه عداني الله إلى إنفاسه وحد الوان بعد فاتي وخالد وأنا هداني الله بلا عباسي وخاد للأمي البعثي بلا إفاعة وخادم والنبي الفاتح ورنانو دلو سنت خير الخديم شيخنا أحمد نفل في العين القديم يا شيخنا عمدون في الهي ورنانو جلو سنت خير الخديم شيخنا أحمد نفل في العين خير الخديم خير القديم شيخنا عمل القلب war noonu dellu dellu sant xayrul xadimi sayxuna ahmadoonu fal fil iine waaw ke baay dam ahmadonu may leenu tànn ubbal gëneel yu taaru ci diine baay dam ahmadonu may leenu tànn waaw leenu tànn baay daam axmadoonu may la nu tànnoon bu nu yóbbal gëneel yu taaru ci diine baay daam axmadoonu may la nu tànnoon la nu tànnoon bu nu yóbbal gëneel yu waaji siyet lu gaaya ca baay ku sant lu gaaya ca baay sadanu e e dakas baray di sotuliyo ku jug ci sa podak ger gemine dakas awar di sotuliyo sotuliyo bal tay ku jug ci fudak ger gemine ba e danu daa dox di xëy di gontu ba dem Ndar te ku jóg war wat ak gaal li safiine te ku jóg war wat ak gaal li safiine